ñaari question moom foog ma évacuer ko euh, muy fin de mandat bu Moustapha Niass ni ki alxames ngeen war a euh, teew foofee ca assemblée euh, ngeen ki ngeen invité nag di Adama Bictogo di président bu assemblée bu Côte d'Ivoire comme hôte tey ji Moustapha Niass di jeexal li nga xamante ni moom moo di voilà moom moo di réunion foofee ca assemblée nationale qu'est-ce que ça te ñu mën a jàppal jàpp ci bilan ak également tey ji ci quatorzième législature bi kan nañ ci war a mën a xaax xamante ni nag yegg ah boobu nag yàlla xam quatorzième bi ñëw loolu moom yàlla moo eh, du may du may nettali samay yëttu moom mu ngi noonu waaye li may xam rek jàpp ko mooy que ne <laughs> mhm. euh, le président Moustapha Niass honorable député koo xam ne ne dafa am compétence am capacité am ay aptitude yoo xam ne ñu bari gisuñu ko wala ñenn ñi sax dañ ko gis waaye dañ koy salfaañee pour xëy na ci xeex parce que moom laa wax ne aujourd'hui la politique est devenue une adversité même animosité mi ngi ci mais président Moustapha Niass jàngat la. parce que mag la benn daf ñuy wan ne bu ñu amee souvent yenn yenn plénière yi. Mhm. di nga gis dina fa toog waxtu ya ñu fay dekk yëpp ñun di nga gis sax. Mhm. ay député yu jóg génn dugg génn dugg. Mhm. mais fa mu toog fa lay toog. di rendre hommage aussi. ki nga xam ne ne que moo doon secrétaire administratif kii bi secrétaire général assemblée. waaw muy euh, Joséphine Marie Joséphine bi nga xam ne moom moo décédé temps yii. te da leen doo gis ñu toog ñoom ñaar. tant que plénière bi jeexul ñu jóg wala ñu suspendre ko donc mu nekk ay références yoo xam ne ne que comme ni ñuy wax ñun dañu ñëw assemblée war a jàng ci yenn yi jàng naka la assemblée di doxee parce que ëllëg ñoom fi ñu toog ci perchoir bi ñaan nañu yàlla ñu tamit ñu toog ci perchoir bi donc nag dafa am loo xam ne ne que toogaay comme li may wax toujours euh, sama te sama président Ousmane Tanor Dieng feu Ousmane Tanor moo ko doon wax mu ne la personne dans toute situation et n'importe où fu mu nekk dafa war a am tenue am te loolu dafa am solo boo koy doxee te li nga xam ne dañ ko def muy Moustapha Niass mu jàngal ñu ko mooy que ne am na xam-xam. d'accord am na xam-xam. mais au moins bu demee xam naa ne a euh, profiter ci retraite am noppale ko. parce waaw ku nekk loolu ngay ñaan di ñun suñuy waajur a ngi ni dañuy ñaan bu ñu jëlee retraite ñëw toog ñun wute nañoo tubaab yi bu ñu jëlee ñoom retraite dañu leen jël yóbbu leen fenn waaye ñun dañuy jël suñuy waajur téye leen Moustapha Niass nag loolu nañ koy jaara parce que liggéey na ci Sénégal waaw xam-xam boobu am na ko taxawaay bi am na ko mm. te tamit am na xol bi pour li nga xam ne ne moo doon gunge li nga xam ne mooy président léegi nag jeudi wax nga ko tey jii léegi nii à 16h dañu am sax procédure d'urgence ci li nga xam ne ne mooy fonctionnaire yi donc am nañu léegi commission suba nañuy am plénière aussi à 16h pour même dossier bi projet de loi bi mm. mais jeudi incha allah ne ne mooy 2021 te wax dëgg yàlla euh, ñu koy defal nag euh, muy doon tàggatoo parce que ñun ñëpp en tant que député mhm. yi nga xam ne ñooy treizième législature ñu tàggatoo euh, parce que on est devenu des frères on est devenu des sœurs nekk ñoo xam ne nag xamante la te du lii moo koy dindi donc ce sera pour pérenniser parce que dama ne ànd yàlla moo koy def ci nit te bu dëgëree ñu ànd bokk ndey ak baay c'est sur comportement nit ñi bu ñu demee mu tas tamit si suñuy comportement la te dañu ñaan yàlla suñuy ànd yi continuer parce que tey fu mu nekk ñi ngi def ku ci xewle woo sa moroom mu ñëw taxawu la ku ci am lu naqar tamit ñu woo sa moroom ñu xew la te en tout cas di gërëm le président Moustapha Niass parce que le président Moustapha def na deux ñun deux mandatures Euh, législature ñun ci deuxième bi muy euh, treizième bi nañu nañu fekkee ak moom wax dëgg yàlla li nga xam ne nekk jàng nañ ko si moom te surtout avec la maitrise des textes li nga xam ne ne loi organique la bi ñu am muy suñu règlement intérieur nu mu ko si maîtriser di ko si mhm. waxee di ci teg nit ñi yoon mhm. loolu wan nañ ne ko dëgg rek mooy mooy macha allah am solo mais dama bëgg nag question bu mujj bi euh, socialiste nga je rappelle euh, quatrième euh, vice quatrième présidente quatrième coordination bu ah. Mermoz Sacré-Cœur mais ci loolu da nga am ay ambition personnelle pour nekk présidente socialiste départementale bu Dakar ah loolu si objectif yi moom laay wax ne naa xam nga nit ku nekk l' ambition c' le moteur de la vie nit ku nekk bu amul ambition nga war a xoolaat nit ki li nga xam ne ne nekk na mooy que ne man je fais partie des grandes communes de de de Dakar ñi nga xam ne on a 19 18 coordinations parce que Gorée dañ ko boole ci plateau donc de telle sorte que ne aujourd'hui pour li nga xam ne dañ ko bugg porter comme politique socialiste au niveau de Dakar bëgg naa bokk ci ñu koy propulser ça fait partie de mes ambitions. Mm-hmm. de pouvoir être dans les les les, les pouvoirs de décision yore ci ñi nga xam ne ne ñooy personnalité décisive yi nga xam ne ne ñooy nekk pour Dakar. Mm-hmm. pour mun ko porter. Mm-hmm. Euh, c'est la première opportunité président Ousmane Tanor may na ma ko mooy que ne tey nekk naa euh, député. parce que moom moo ne il faudrait que Juliette duñ ko dugal ci au conseil dañ ko am leneen loo xam dañ ko daal te ba bi investiture ñëwee mu def ko. Mm. bii nii confirmé par sama secretaire général. ak le président Macky parce que xam nañu président moom moo. moo defar liste yi donc ñu porté waat pour mun a confirmer waat mm. euh, personnalité boobu au niveau de Dakar en tout cas donc bëgg naa ko pérenniser dëgër ko mm-hmm. pour ñi nga xam ne ne que bëgg nañu tey porté parce que je dis l'action citoyenne et les mm. socialistes waaw donc lépp loo xam ne dañ koy def tey si mm. mbirum socialisme ma bokk si ñu koy propulser au niveau de Dakar c'est mon ambition am na solo sa sa ambition boobu ñun man mi euh, dinaa la ci jàppale parce que tamit boo ko doonee xam naa ni euh, ah, ku neex dina ko doon voilà ah. donc honorable a été un la c'est partagé euh, tey xam naa ni jot bi bëriwu ko woon yow doy toog tout le Sénégal mais nangul nga ma ko donc maa ngi la remercier bu baax a baax euh, di remercier également euh, ki nga xamante ni moo di sama sama yaay sama xarit Aïda Sow Diawara ah, di sa waaw waaw voilà di sa mag di nit ku baax koo xam daf ma bëgg moom tamit ma koy ñaanal gudd fan ak wér donc li nga bëggoon wax yi wax nga ko tàggatoo waaw ah, macha allah xanaa di ah. leen a di leen sant waaw ñu ngi lay sant vraiment le cadre idéal uh-huh. Euh, comme li ñuy wax man euh, la presse euh, dafa nekk métier bu noble boo xam ne ne man j'ai fait la communication mais nag daf dañ ko war a encadrer et bu ko gisee ay xale yoo xam ne engagé gëm seen métier di ko dox di ko defar d'une manière vraiment exemplaire du ma gën lu dul di leen gën a ñaax mhm. parce que namit la vie elle n'est pas yeewoo loo rek yëpp sotti mhm. donc euh, éternel combat la mais mu nekk un combat noble mhm. da ngeen xam ne si li ngeen nekk nii ñëpp leen teg gët man c'est la première fois et je suis bien satisfaite gis et j'ai vu le personnel qui est très jeune parce que tey dañu war a jàppale jeune mhm. pour jeunes yi war a mën a jëm kanam en tout cas di leen gërëm di leen sant di gërëm tamit euh, toute la population sénégalaise uh-huh. te xam leen ne tey euh, nous sommes au niveau international uh-huh. vu d'un d'un œil vraiment ndax gis nañ ne que ki jiitu uh-huh. jiite suñu dëkk mi ngi siy def di ay actes yu leer uh-huh. nañu xam ne ne que tey bu moment jotee pour nga xam ne ne que war nañu consolider ñu consolider bu moment jotee pour ñu war a xeex leen dañ koy xeex passer à l'autre chose mais on ne peut pas toujours être dans un combat boo xam ne ne que day yàq li nga xam ne ay akki nañu te man dama jóge si dëkk bi ma jogee fii muy Ouganda ma gis ne lu tuuti li nga xam ne ne que nañ ko def ko réaliser ko seen dëkk ñoom ñëpp dañ ko téye di ko consolider mais fii ngay gis ne que tey ñu réaliser dara suba nga gis mu am dara ñu ñëw toj ko yàqu ko ñu jëlaat ci xaalis war ko defaraat mhm. donc il faut qu'on réfléchisse à notre façon de faire mhm. à nos comportements et la vision que nous avons de la politique am nga ne ba tey ci propos yu euh, ancien ministre bu Abdoulaye jàpp nga ne tey jii euh, si cette information est avérée euh, le fait est que armée war a gën a dugal loxoom gën a présent ni ngi di ko gis nii comme ni ñuy ni manifestation ñu ñuy gis auto policier jàpp nga ni dina lu baax pour réew mi yow xam nga man nee man duma wax ay waxam. non kooku ca biir feem non déglul ma wax la gis nga kooku. am nañu ko tane sax ñu bari. Ah, parce que kooku moom honorable nag kaay wax la gis nga nag da ngay nekk ci assemblée bi. liggéeyul liggéeyul man man man sama plateau bi doo ma ci ñoom xam nga man bëgguma di wax sax si kii ñooñu liggéey dañuy toog jël dara lu mel ni fii daal di sotti mm. taxaw ci expliquer man ku ci mel ni comme Mamadou Lamine Diallo dama koy xibaar gi laa wax xibaar boobu tey jii bu dee wér na nga dem yow presse nga dem def investigation mm. nga dem defi fa enquête non comprendre ah. dama ni ndax tey jii su fekkee ne armée dafa gën a présent nit ñi di ko gis ni jax nañ euh, jàpp nga ni loolu dina nekk dina nekk na lu baax euh, armée boo gisee armée génn dara mooy tax mu génn mm-hmm. armée voilà bu ñu demee ba mu génn dara moo tax mu génn xam nga fu mu nekk ni ñu ngi naan waa sécurité Sénégal mm. il faut que lii ñu am policier bu nekk ci ci benn sénégalais mënul mm. nekk donc nag tey armée bu génnee dafa am benn mission bi muy def delluwaat ci caserne am loolu mooy liggéeyam mm-hmm. moom nag la mu bëgg ñëw taxaw di wax ak fii di wax naan armée ni ay supposition ak ay li nga xam ne leeru ko la d'accord nekkoon na fi premier ministre waaw ba mu fa nekkee la fa def ak jël fa ay mesures moo xam mënuma la ko wax mm. donc mënu fi nekk génn fii tey buggu jël yëpp yi teg ci place publique bugg tiital nit ñi wala indi fii yoo xam ne ne du loolu donc dafa am nit koo xam ne dangay ngay nekk kilifa sa njaboot nga am toog ci am say mbokk ak say xarit ak say am di jàmm d'accord voilà loolee am na solo mm-hmm. euh, mais également ginnaaw ba ci euh, ci ci ci sécurité wàllu sécurité lañ taxaw ba tey mu bëgg tamit am sa gis-gis ci par rapport ak luñ dippee la force la force spéciale ñu gis ni procureur temps yee passé Euh, ginnaaw manifestation bu 17 juin bi dafa defoon benn sortie face à la presse def ay révélation euh, fësal ni teg nañ loxo ab rebelle bu tudd Ousmane Kabiline Diatta et dafa bëggoon bokk ci li nga xamante ni moo di manifestation bi ci loolee xamle woon na ni am na ñeneen ñu nga xamante ni tegaale nañ leen loxo ñeneen ñooñu nag après plus tard dañoo gis ni mooy ñu ngi dippee la force spéciale et que bëggoon nañu sax attenter à la vie de Adji Sarr opposant yi nag jàpp loolee ay bluff kese euh, yu bari nii penn waaw yow nit gis noonu yow comme gàttaan nga yow mat nañu si yow ñett. waaw ak seen façon nii nga xool leen. di am na ñenn ñoo xam ne sax dañ leen tendre micro ñu wax ne leen li leen indi du lenn lu ñu ñëw déstabiliser donc yow nga ñëw toog on voit ces parce que tey Casamance l'armée est en train de faire un bon travail moom mii di Abdou Mbaye na wax loolu. parce que ñi nga xam ne ne que tey dañ fa ñëw ngay jël bant bi nga xam ne ne que moom la Sénégal am noix de cajou nga jël yëpp jaarale ko ci. frontière Gambie dem toog di lijjanti feneen wala ñu jël ay tool def fa yàmbaa ba mu fees saxal ko fa di ko jël yóbbu di di def ay kii dama ne l'armée a nettoyé fu mu nekk te loolu nañu bëgg ndax Casamance Sénégal la bokk fii c'est pas un autre état ci biir état fii Sénégal ñun ñoo nekk benn on est unis on est ensemble yàlla moo ko dogal moo ko def donc tey bu armée bi liggéeyee loolu am ñoo xam ne ne fu nekk jaar nañ fa daw doomu am ñu ay yàgg si Dakar. parce que ni ñu ko déggee noonu nañ ko gisee procureur génn na taxaw ñu wax mais tey ñi nga xam ne ne ñoo bëgg déstabiliser Sénégal waxuma ñenn ñi dëkk fii de Sénégalais yi nekk extérieur nekk fa di doxal di doxal économie dëkk ba ñu ne di bëgg ñu économie Sénégal jaxase Sénégal ñoo ñooy toog foofu di def seen ay ket di yónnee ay xaalis pour jëfal lii jëndal lii jël matériel ak def nii man man bi may dégg yëf yi sax ñuy wax. seen seen euh, en ligne yi seen lu ñu dugal. a mm. la fin tu te dis on est où. ay mafia kàcc xam nga aujourd'hui quand on dit que Interpol ñu naan waaw am na sax kuy defaan. Ah, waaw mais bu leen neexee seen xaalis la. dañu dégg dugal ko dañu dégg. ñu nekk dañu dañu dañu génnee Interpol dañu génne Interpol ça c'est la police des polices. parce que dëkk yi ñoom ñoo ko lii ce sont des conventions internationales hmm. bu dee da nga ñëw toog mënoo nekk si dëkk ba fee war a liggéey foofu lijjanti sa njaboot fii nga war a mën a dem toog taloo dara lu dul di collecté loo xam ne yaa ngi bëgg a taal dëkk bi hmm. loolu du yoon kenn waru ko seetaan hmm. te tey ñun ñëpp ñoo war a mën a taxaw face à sa parce que tey li ñuy wax politique nga accéder au au pouvoir universel loolu moom da nga koy xeex et c'est la démocratie nga jaar ca urne ya yàlla bu la ko mayee nga jël bu la ko mayul nga dem toog mu ñaat def ko président Ablaye Wade def na ko fi 26 ans lu nekk daj na ko fi xëñ na amoon na yenn imperfection si yenn yi. mais est-ce que du tamit nekk président dafa ñoo nekk président. mais du chef euh, si si si si si point bi nga tax est du euh, procureur ni mu réagir peut-être moo indi euh, jiix jaaxa ci xelu askan. c'est-à-dire dañoo gis ni dañoo gis ni procureur ba muy doog génn dafa def dafa def ko dafa def ja toog janook presse bi. def ay révélation ñu gis ne après nag yeneen xibaar dañ ko jël jox euh, xool yenn presse yi nga xam ñoom la ñu ciblé jox leen xibaar yi voilà rek daal leen jox xibaar mais noonu nag dans ce cas là ci mbir mi dafa amee solo est-ce que jàppoon ni tamit procureur peut-être xam nga toog naa ñuy wax ñu naan non procureur li procureur c'est le procureur de la république waaw waaw waaw procureur de la république information yi mu am amuma ko amoo ko d'accord na procureur de la république mais dama ni ci mbir bu amee ni solo instruction ci mbir bu amee ni solo est-ce que tamit procureur waroon gën a toog wax de ce fait peut-être jeexi jaaxal bi ngeen di am d'enquêter dañu ne dañu nekk di enquêter di def kii bi loolu moo tax ñu lancé Interpol lancé feneen ñu nga xam ne ne jàpp nañ leen lu ñu def bu ñu tuddul woon waaye jooju kenn du ko kenn du ko woo mais dañu am ñoo xam ne dañu leen téye mu nekk en instruction bu nekkee en instruction nit ñi nag da ngay am comme li ñuy wax le temps de la justice n'est pas le temps de l'homme nit ki dafa am foo xam jaar pour dem wuti xibaar yi wuti lu gën a leer indil ko nit ñi bés bu jotee procureur wax ko de procureur daa am fu lak fayda te nag nit ñi nag man dama bokk ci ñi nga xam ne ne dama ne suñu justice bi nañ ko naw téye ko te ki démb damaa jógee Uganda nee naa président de la république loolu bu ko munoon dañuy def benn budget teg ko sénégalais gu mun ñu jël la nga dem wëri ñëwaat ba nga xam fu dëkk neexee parce que yenn yi taxaw amul liberté pré amul dëkk moom léegi moom neex dama ne moom am dëkk bi honorable ah, dëkk bi moom léegi moom neexatul dund bi cher na ku bëgg ah, nekk fi tamit comme ni ko opposé wax nekk c'est partout ñun dañu nekk tey dans la mondialisation nekk ay convention internationale ni ñu naan tey jii parti bu nekk mu mënoo demaltal sa bopp il faut nga nekk coalition noonu la nekkee ci pays yi te tey dañu interpeller Afrique tey position bi mu jël pour mu war a mën a toog Union africaine dëgër am li nga xam ne ne que moom mooy agenda 2063 yi nga xam ne ne tout ce qui est politique de développement muy vision wu Afrique Union africaine mu nekk ci agenda boobu ñun ñëpp ñu war ci mën a d'accord mais ci tey ZLECAf bii ngay gis si wàllu commerce mu ngi ci te kan moo ko jiite fu mu nekk nii muy sunu ministre du commerce nga xam ne ne que tey li nga xam ne dañu jëm ci pétrole tey opportunité la. d'accord yàlla may ñu si. d'accord te ñun fa ñuy sunu pétrole ak gaz di génn gis nga jafe-jafe yi ci yeneen dëkk yi ci pétrole ak gaz. waaw d'accord mais dama bëgg ba tey nga taxaw ci force spéciale yooyu. nga taxaw waaw mais force euh, spéciale bu ñu ci def dañoo dem tuddee oh, ñoo ko tuddee seen bopp de. te du tuddee seen bopp force spéciale force spéciale spéciale en quoi nga gisi ay ay xaw ma nu mu tuddati ay man ñenn ñi sax dañoo xarañ léegi ñoom def seen ay yenn matériel ak yu kenn xamul téye ko gis naa ci euh, mag ak imaginer que te yooyu dañ koy def les parents ne sont même pas au ci xibaar mais ba tey ci xibaar bu nga xamante ni euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk ci nguur gi.